auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi anaara alkawna bi talaati xayril bariyati wassalaatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lilalamina sayidina muhammadin xaamili liwaai alhamdi ixwat al imaani wal islaam wal ixsaani wal iraada asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M-Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nanguñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te di ñaanal suñu xalifa a cheikh muhammadul muntaxa Mbakke yal na ko yàlla yàggal ci suñu kanam lu bare bare bari te doole ko kattan ak xéewal ak wér ak fekke ba lim bëgg liggéeyal maam xaadim rasul lépp mu mën ko ko liggéeyal te nu ànd ak moom liggéey boobu di jël nuyoo boobu rek di ko teg ci loxool kilifa ak jotaay bi muy sunu sëriñ a cheikh abdul ahad mbakke di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla gën ko jàppale bu baax a baax moom itam booba lim bëgg a liggéeyal islaam moom itam mu am ci lu kawe njortam te nu ànd ko ak moom ñu koy ziyaare di ko ndokkeel bu baax a baax a baax di rafetlu ab taxawaayam ak ab soññ boo xam ne bii doon na ko nekk ci suñu kanam ñuy jël ziar boobu rek ak nuyoo boobu di ko teg ci loxoom di ko ñaanal di ko ñaan mu jot ñu ko ci mbooleem jullit yu sell yu baax yu mu seqal liggéey bi nga xam ne bii moom la ñu yàlla baaxee di siyaare ñëpp nag góor ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi suñu kilifa yi ci biir jotaay bi yëpp itam ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen ci suñu kanam waaw di ñaanal borom xam-xam yi bu baax a baax itam ñoom itam wàllu taxawaay gi nga xam ne kii taxawaay bu rafet rafet la ñu di ko taxaw ci liggéey bi di ko saytu ngeen ji saytu di ñu ci yokk ci wàllu xam-xam di ñu fàttali di ñu jàngal ñooñu itam ñoo ngi leen di ziar bu wér a wér a wér a wér waaye tamit di ziare waa alquranul karim te nekk ca bopp ba. sëñ Modou Diouf moom itamit di saytu liggéey bu sell boobu moom itam saytu bu ama am solo am ci itte lool moom itam yal na ko yàlla gën a dëgëral di saare borom xasida yi jàngkati xasida yi itam ñoom itamit ñi nga xam ne ñi dañuy durus ay xasida yu limoo limu di ko def hadiya di ko tàbbal ci biir liggéey bi ñëpp daal ak woyu teewlu yi ak ñi nga xam ne dañu fi tàbbal seeni laaj ngir bëgg yokk ci seen diine ak di xam loo xam ne li xamuñu ko ak it di ci fàttaliwaat ñi nga xam ne ñi xañ na fàtte day am léeg-léeg kon ñëpp daal ñoo leen di ziar tey tuum nag di jéggulu ci gëja tab bi koo xam ne gi xañ na jataay bi gëj nañ cee tab bi xam naa ni jamono ji demee rek comme noonu ko jëriñ waxee suñ Moodu Ngom ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom itam di ko ñaanal moom itam taxawaayam moom itam ci liggéey bi ak yitte jim ci am yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam barke Seexul Xadim ñuy jéggul bu baax a baax rek fas yéene rek maanaam tàbbiwaat ci liggéey bi ci kàttan ak yàlla ak ndimbalam ginnaaw nuyoo beeg ziar nag kon ñu jubli ci laaj yi nga xam ne rek moo fi jotoro tey te laaj yi jëkk jëwriñu jotaay bi muy Modou Ngom ñi nga laaj ko fi muy dafay am ñaari laaj yu muy laaj yoo xam ne yii dafa aju ci wàllu julli bi ci jëkk day laajte mata laa yudrakul imaamu fi salaati Modou Ngom dafay laaj ne fan la julli di tollu nga xam ne ku dikkati léegi bëgg a bokk ci julli mbooloo ga dootoo mën a dab imaam ja maanaam dootoo mën a bokk ci julli mbooloo ga ne ne loolu kañ lay am maanaam kañ daal la nit ki di ñëw ñëw fekk nit ñi di julli te fekk na moom raw nañ ko ba julli ko moom mënatu caa bokk lay wax loolu fan lay mën a amee loolu dañ ko naan laa yudrakul imaamu baada rukuuhi fi rakaati al axirati min assalaat dañ ko naan julli gu mën a doon mu doon julli mbooloo su fekkee ni dem nañu moom imaam ja dem na ba àgg ci rakkam bu mujj ba ba rukoo ba siggi képp koo xam ne kii ñëwati nga boo kàbbare itam dugg ci julli ga maanaam moom julli ga raw na la maanaam dabatoo imaam maanaam googu julli moom doo ca bokk waaye soo ñëwee fekk mu rukoo ba siggi ci rakkam bu mujj daal da ngay kàbbar ànd ak ñoom lañu dese ci julli ga su imaam sëlmalee nga jóg daal di julli sa julli bopp nga xam ne da ngay àggale sa julli waaye julli mbooloo ga moom amoo ca dara maanaam googu julli daal faat na la raw na la bokkoo ca loolu nag mi ngi dale nit ki ci bu fekkee ni julli gu mu mën a doon ca rakkaa bu mujj ba la ñëw fekk ñu rukoo ba sigi bu baa moom dootuñ mën a dem mbooloo ma dootu ca bokk beneen laajam bi mu dungom ba tey ci wàllu julli la rek muy laaj xukmu man yasbixu imaamaho fi ruknin min arkaani salaat hal hada yubtilu salaataho beneen laajam bi moom mu dungom day laaj nekk nga xam ne kii daa nekk ci biir julli mbooloo nga xam ne imaam moo leen di jiite te jëmm jooju am koo xam ne daal day jiitu ki ko jiite maanaam imaam ja ci lenn ci ponk yi nga xam ne yi mooy ponk yi julli ga ne ne ndax loolu dina yàq julli kooku wala lan mooy atteb julli googu waaw dañ ko naan nit ki bu ñu ko jiitee maanaam day bokk ci ponk yi nga xam ne ca farata yàlla maanaam da ngay yéene roy ci kile jiite muy sa imaam te jéem nag da ngay roy maanaam ki ngay roy maanaam la mu def ba pare wala mu wax ko rek maanaam moom ngay topp ci ginnaawam dog koo def wala nga dog ko wax waaye boo ko ci jiitoo rek kon maanaam royatoo ko kon dañuy bañ sib lool nag nit ki buñ ko dee jiite muy jiitu imaamam ci rukoo wala sujjóot wala sigg ci rukoo wala bu mën a doon rek ponk bu mën a doon daal dañu koy tere aaye ko moom mi ñuy jiite mu jiit muy jiitu ka ko jiite ci benn ponk ci biir ponki julli ga su ko defee kooku nga xam ne kii nag day jiitu imaamam ci yenn ponk yi bu fekkee ne dafa nekk loo xam ne moom moo ko tey maanaam moo ko ci jublu di ko def moom day yàq julleem day yàq ak julleem waaye su ko teyut it maanaam lu ñu war a moytu bu baax a baax la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da cee wax wax ju doy waar muy xaddis bi may bëgg a wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne amma yaxsha ahadukum ida rafaa ra'sahu qabla al imaami an yaj'al allahu suuratahu suurata ximaarin sayyidina muhammad ne waaw kenn ci yéen nekk ci biir ak julli ndax du ragal su jiitoo imaamam ci benn ponku maanaam jëgg koo sigg ci rukoo wala mu jëgg koo sujoot wala mu jëkk koo sigg ci sujoot nga ne kooku ndax du ragal su defee loolu yàlla daal di suppi yaram moomu way mu nekk yaramu mbaam loolu lañ ciy dégg rek mooy loolu doy war la loo xam ne lu ñu war a moytu la ngir loolu ci yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dañu koy moytuloo bu baax a baax kon daal ki ñu jiite daal daa war a topp ci imaamam lépp loo xam ne lii lu bokk ca ponk yàlla balam koy def dafa war a xaar ba imaamam def ko ba pare ngir ñu sàmm wax jooju yonente bi wax ne kiy jiitu imaamam ca ponk ya daal na xam ne yàlla mën naa dogal su defee loolu maanaam jëmu jooju yàlla soppi jëmam jëmu doon jëm ni mbaam te loolu xam nga ne lu day waar lu yéeme yéeme la yàlla nañ ci yàlla musal yeneen laaj yi ci topp sëñ Moussa Ndiaye moo ko fi yónnee moom itam mu toll ci ñetti laaj waaye mën nañ ne ñaari laaj moom daanaka ñoo bokk ab àtte rek ndax moom dafay laaj ñaar ñi nga xam ne ñii dañoo ay jullit lañu waaye dañoo noonoo ci seen biir te nungatuñoo juboo maanaam nanguñoo juboo beneen bi it mu ne ñaar la yoo xam ne itam dañoo xuloo woon meroo ba dootuñu néewante waaye ñu dem ba ci yàgg si kenn ki wëlbatiku meram jeex mu bëgg a juboo ak ki mu xuloo lan kenn ki bañ lan mooy atteb loolu waaw ñaar ñooñu de liñ ko ci wax sëñ Moussa mooy ñaar ñi nga xam ne ni dañoo xuloo doxale ak noone seen diggante te nangootuñoo juboo ñooñu moom dañu jàpp ne maanaam ñu ngi def loo xam ne maanaam ab jullit waru koo def ndax seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ci ngëneeli laylatul qadri muy guddi gu màgg googu nga xam ne gi dafa nekk ci biir weeru koor te yàlla jagleel ko xeetu seyduna muhammad wi jagleel nu ko xiwale ci yàlla def dikk ko jullit ñi kenn mënta xayma lu mu toll te mu bokk ci ngëneel yooyee seyduna muhammad ne guddi googu de bu ñëwee yàlla ci rimandeem ak ngëneelam ak ak jéggalam mën na cee jéggal jullit yépp baal leen dootu leen topp dara ba mu des ñaar ñoo xam ne ñi daal ak noonu dox na seen diggante ñuy tongoo te jubóo ñu kon benn tom boobu donc buñ koy xool ci waxe yonente boobu kon dafay jar ñaari jullit ñuy dund dund ak jullit ba xañ na mer moom mënta ñàkk waaye su mer amee it nañu gaaw bàyyi ko te jéem a jubóowaat ndax guddi googu ni mu réyee yàlla man cee jéggal ñépp am ñoo xam ne ñi ay jullit lañu waaye nee nañ ñoom mënuñoo bokk ca njéggal ga te mooy ñaar ñoo ñu noonoo bañatee juboo kon loolu day jar ñaar ñu ko seqe gu ngeen fexey mu gaaw jeex seen diggante moo gën ndaxte da ca tegaat waxaat dis ne jullit daal wërta tongoo ak moroomam jullit lu ëpp ñetti fan kon ab tongoo ba àgg ci ñàkk néew daal ci diggante ñaari jullit lu mu yàgg-yàgg maanaam wërta ëpp ñetti fan su ko defee ñeneen ñaar ñim ci tegaat nga xam ne dañoo tongoo ñoom itam ba néewatuñu kenn ki dem ba bëgg a jubag moroom ja moroom ma bañ foofu yi tamit dañu xool ne ñaar ñooñu daal kon kan moo ci gën mooy àggaleb xadis boobu ma doon wax ndax bam ne daganut ci ñaari jullit ñuy tongoo lu ëpp ñetti fan da caa teg ne su loolu amee nag dañuy xool ka nga xam ne kii daal moo ci jëkk a tàmbali di nuyu moroom ba daal maanaam mooy ki nga xam ne kii moo gën kon bu ñu natt ñaar ñooñu kan moo ci gën dañuy jàpp ne ki nga xam ne kii moo jëkk a bëgg a juboo bëgg a nuyonteeg moroom ma moomu kon moo ko gën nag xaddis bi it loolu la ñu wax kon daal yonente sallallahu alayhi wasallam daal ne ne ñaari jullit daal waruñoo tongoo meroo bañ a nuyonte lu ëpp ñetti fan su tongoo ba amee seen diggante nag ka ñuy xool ne moo ci gën mooy nga xam ne kii moo jëkk a wàcc jëkk a jeexal meram bëgg juba ak ko nga xam ne kii moom la noonoo lan di tongoo ak moom ñetteelu laajam moom Moussa Ndiaye dafay laaj mbooloo ma xam ne nii amuñu jàkka ab dëkk la amuñu jàkka waaye am nañu béréb boo xam ne bii daal wut nañu ku leen di jiite béréb boobu saa su nañu dafa daje waxtu juróom yi ñu fay julli wut ku leen di jiite lan mooy atteeb loolu mu ne kon maanaam lam cee laaj sax mooy dane bu ñuy jullee julli mbooloo maanaam ab imam jiite leen meneen mbooloo day ñëw ñoom itam wutaat ku leen jiite julli ci même béréb boobu su ko defee foofu moom liñ ko fi waxin mooy dëgg dëgg maanaam julli ci bayaal moom maanaam amaguñu masala bi dajeeguñu ak moom ci fiq waaye kon dañu jàpp ne béréb bu mel noonu mbooloo di fa daje daal di julli te saa su ne ñu ngi fay julli julli yu ràññeeku yi muy julli farata yi tey dañu wut imam boo xam ne bi moo leen di jiite dañu koy jàpp bërëb boobu euh, bërëb ab jàkk tey jàkk la sax nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne yàlla defal na ma suuf sépp muy jàkka kon bërëb bu mel noonu nekk ci dëkk mbooloo mu déggoo noonu wut ku leen di jiite ñu fay julli dañuy fexe yi ba julli ga di doon jullik mbooloo ga di doon benn yoon maanaam bu ñu jullee xasee julli ba imaam jiite leen béréb boobu ku fa ñëwaat di julli maanaam nga dem ak sa jullik bopp te ñu bañ a taxawalaat geneen julli koo xam ne gii jullik mbooloo la ndax dafay wax ne laa yushra'u taaddudul jamaati fil masjidil waahidi fi waqtin waahidin sharia daal nee na day bañ ñu def ci benn jàkka taxawal fa ay julli mbooloo yu bare bare yoo xam ne dañuy taqali ko mbooloo julli bàyyi ñeneen beneen mbooloo ñëw julli beneen mbooloo ñëw julli ci wenn waxtu ne ne loolu moom sharia da koy bañ waaye nag wala ne it wala yushra'u taaxubul jamaati arratibati fil masjidil waahidi ne na tamit comme li mu wax dafa doon ñaari xaaj muy ñu def ko ay pàcc ay mbooloo mbooloo ku julli suñu paree beneen mbooloo daal di duggaat julli beneen bi it mu ne wala nga xam ne ñii dañuy julli ci yeneen xeeti julli yi muy même julli farata gi la rek lay wax mu doon benn jullikaay boo xam ne fa la ñuy jullee ñu def bu ñuy jullee suñu paree. ñeneen ñëwaat di julli nee daal loolu daal moom sharia nugul ko ndax ne ne loolu dafa bokk ci li nga xam ne lii moo gën a tàqale mooy gën a mën a tàqale jullit ñi day day gën a yéesale seeni xol ndax bu dee bi ni mbooloo mi ñoom ñëpp ñoo bokk na ci dëkk bi ñuy xajjaloo noonu ci béréb boobu ci benn béréb bi bu ñuy jullee mbooloo ñeneen ñi ñëw julli seen julli mbooloo it ne ne loolu moom maanaam ay yéesalee xol lay doon ak ak noonu ak ak taqle la doon gën dal mooy buñ jullee jullee mbooloo ga daal ñeneen ñu ñëw rek ku ne dem ak sa julli bopp bu ko defee ñu gis ne fii ak déggoo fi am ak ay boole seen xol doon benn looloo tax noonu lañ bëgg ñuy jullee ci béréb yi moom loolu nga xam ne ni mbooloo moo fay jullee yeneen laaj ci topp si Moustapha Thiaw moo koy laaj moom itam moom it muy laaj laajam bu njëkk bi ne ki nga xam ne ki day ñëw ci jullit mbooloo gi waaye fekk na ne dafa dem seet benn bërëb rek maanaam mu dale fay beru maanaam nga xam ne duggul ca sàppe sa daal demul ànd ak nit ñi ca biir sàppe sa waaye daal dugut rek foo xam ne fi mën na faa taxaw julli mu beru fa di julli ànd ak mbooloo ma waaw loolu dañ ko naan dara nekkul ci maanaam julli ga day baax su fekkee ni moom jëmm jooju fi mu taxaw di julli jokkaloo na ak maanaam jàkka ja jokkaloo na ak jàkka ja rek mooy bu fekkee ni bayaalu jàkka ji maanaam fa la nekk nga xam ne bu sàpp yi doon dox ba nit ñi di yokk di yokk sàpp yi day ñëw ba ak si foofu su jullee foofu baax na waaye itam bu dee ni ci mbedd la moo xam ne dafa jaar ca pénc ma jàkka ja ne wala bayal ba jàkka ja ne nga xam ne day jokko sàppee jàkka ja moom itam wala jumaa ji mu nekk foofu moom dong di fa jullit bu boobaa dana baax la dul gën nag mooy mu dem ba ca biir mbooloo ma dugg ca sàppe ya julli foofee waaye su beroo julli sàppe moom dong itam ànd ak mbooloo ma di julli te foofu mu julee bokk ci bayaalab jàkka ji wala jumaa ji wala ca mbedd yi nga xam ne jokkoo na ñëw ak bayaalab jumaa ji wala jàkka ji bu boobaa baax na loola dara nekku ci li mu waxit ne julli kooku maanaam day wér maanaam baax na ñetti aima yi yëpp maanaam d'accord nañ ci muy imam Malik ak Abu Hanifata ak Shafi'i yi ñoom ñetti ñi ñëpp daal d'accord nañ ci masala bi mu wax ne nit ki su ñëwee ci julli mbooloo gi beru moom dong di julli daal julli ga dana wér ñoom ñetti ñëpp d'accord nañ ci loolu lañ ca wax bi ci desaat it sëñ Moustapha Thiaw di ko laaj mooy ki nga xam ne kii daan na ci biir julli mbooloo gi waaye gis na sàppe soo xam ne si feesut ay nit di ñëw mu di leen joxoñ ngir ñu dem dugg ci sàppe soosu nga xam ne si dafa feesut loolu dañ ko naan loolu tamit dara nekku ca lu baax la ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne bi day defar julli ga ndax ak julli moom bu ñuy sàppe maanaam sàppe yépp dafa war a fees kon ki gis foo xam ne fii porax ndol la maanaam ay nit xañ na fa wala nit xañ na fa mu gis nit kuy ñëw muy fi tastiku di ko joxoñ béréb ba ngir mu dem dugg ca foofe nga xam ne fii dafa yaatu def porax ndol loolu lu baax la loolu ci lii defar julli gi la bokk loolu yi tamit dara newu ca ba ca desit mooy ki nga xam ne kii dafa yor portable ñëw ci julli gi fayu ko portable ba far di sone ca biir julli ga kooku ne ne lan moo def atteem waaw loolu de moom ku ne xam ne ne ak julli moom ak dal la laaj ak xel mu dal te appare moom saa bu ñuy julli rek maanaam su sone rek ku yor appareil ba moom na nga xam ne daanaka mën nañ ne julli ga moom yàq nga ci lu bare bare bare ndax appareil moom fu mu sone rek mbooloo mépp moom seen xel na yi day daal di génn ca julli ga daal di nekk ca appareil ba te loolu lu ñu war a moytu la ndax loolu moom defe naa jàkka ju mën a doon wala jumaa ju mën a doon ñaare dinañ fa di bind loo xam ne day wone ne yow fii boo fi ñëwee léegi da nga war a fay sa portable wala sax bu ñuy waajal di xaam julli am ku wax ca jàkka ja wala ca jumaa ja ne ku yor portable na nga ko fay kon daal wàllu portable moom dafa am ñoo xam ne ñu dañ cee xaw a sàggan lool waaye la war dal mooy sooy dem di julli ji ca mbooloo ma maanaam nga fay portable bi ci boppam wala nga noppiloo ko maanaam nga noppiloo ko mooy nga silencier ko nga xam ne buñ ci doon woote maanaam du sone wala nga fay ko benn sax ba julli ba noppi daal moo doon gën waaye yor portable daal muy sone ci biir ak julli daal gënut tey nag lees mën a moytu la nag mënees na ko bàyyi mënees na ko noppiloo wala ñu fay ko ba julli ba noppi diggante boobu yàggut kon ñoo ngi jéglu bu baax di ñaan yàlla defal ñu daw fi rabbi jaay sunu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam